moo taxoon mu waxoon ñi ne wastainu bi sabri wassalaa na ngeen dimbandikoo ci muñ ak julli muñ nag ñetti xaaj la asabru ala taati illah wa sabru an maasi illah wa sabru ala aqdarillah dangay muñ ngir jaamu yàlla taxaw di ko jullil mun a muur sab taabal mun a tëj sab boutique mun a génn sa kër te buggoon a noppalu doon nelew dégg allahu akbar te lii wone ne allahu akbar mooy nga tàggoog nelew boobu nekkoon ci sa noflaay dégg allahu akbar wala hayya loolu fokk nga def lañu wax mooy wone ne fii muñ nga ndaxte bu dul loolu doo mun a topp borom bi subhanahu wa taala ndaxte léeg-léeg day ànd ak ay jafe-jafe ndaxte nelew fajar macha allah léeg-léeg am na koo xam ne mun naa yeewu defar yaramam waaye munul yeewu abadan defar ruuxoom léegi dangay génn ci jàkka yi daje koo xam ne dawi woon na géej bay dellu si nag ngir sangu mun a xëy mu ngi yitte woo yaram wi nga xam ne mu ngi koy defaral ay sax waaye ruuxu bi nga xam ne nag moom la ñuy tëj safara jahannam wala moom la ñuy teral illiyin boobu moom yoonam nekku ci kon loolu lu jara bàyyi xel la lan la amul muñ dafa amul muñ ci taatullah ci topp borom bi subhanahu wa taala beneen muñ bi mooy muñ bu ña def lu ñaaw gis loo xam ne dëgg-dëgg bëgg nga ko waaye amuloo yoon be ngir yegg ci yoon wu dagan nga dal di nangu ñàkk loola nangu ñàkk loola kon loolu mooy muñ bi waaye bu muñ boobu amul foo mun a jaar da nga fexe jaar foofa ba yegg ci loolu nga xam ne mooy sax bëggil kon loolu itam muñ mooy tax jaam bi mun a sori loola beneen bi mooy muñ ndogalu borom bi subhanahu wa taala am na ñu bari bu ndogal ñëwee rek ñu dal di caalit naan lu ma def borom bi subhanahu wa taala naam defoo ko dara lay nattu rek seet ndax li nga wax ne gëm nga mu ngi ci yow wala nekkul ci yow ndaxte borom bi subhanahu wa taala mu ne bu leen yaakaar mukk ne nag dangay ne gëm naa rek ñu ne la aha an yaa ngi ci illi yin gëm nga déedéet foog ay jafe-jafe ñëw foog ay tolof-tolof ñëw foog ay mbir yooyu soxla te doo ci jot dara ñëw foog am mbir yoo xam ne yu xaraam yomb ci yow nga seet ndax danga ci jaar am la kon yooyu ñett yi bu dajee dina fekk muñ am na ku tàggatu tàggatu boobu nag kooku moo mun a yenu daawa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir woote jëme ci wéetal borom bi subhanahu wa taala ak lépp lum la mun a yóbbee nag nit ñi bala nit ñi xas la nit ñi diiŋat la nit ñi wutal la ay tur yi yépp danañ ci jaar suñu jaaree ak yow yooyu yépp jëriñul ñu dal di toxu nag dem ak yow ci igra igra jox la am am dal di la màggal dal di la teral ngir rek delloo la ci sa pas-pas bu sell boobu ñaareelu état boobu bu baaxul rek nag waajal xamal nag dara desatul illa al adaawa moom song rek moo des ndaxte ñetti juntuwaay yooyu lañu yore kon yooyu yépp boo ko waajalee da di leen nërmal loolu nag ñan la mooy ñi nga xam ne nag muñ nañu jaar nañ ci yoon wi wa antumul alawna in kuntum muminin borom bi subhana taala mu ne yéen ay kowe toujours victoire bi ak yéen waaye nag ci sart nag ngeen am iman te iman ku ko am rek dal di am lii nga xam ne mooy muñ kon leeralal nañu bu baax a baax ñu dal di sori lépp loo xam ne mooy bokkaale borom bi subhanahu wa taala ci biir boobu nag la ñuy amee loolu ñuy tuddee albaraa ndaxte daa am ñaar yoo xam ne mooy alwala walbaraa ñan ngay méngool ak ñan ngay denc moom dangay méngool alladina amanu ñu nga war a méngool waaye nag ñan nga war a bàyyi mooy alladina kafaru moo taxoon borom bi subhanahu wa taala dal di ñu wax ne almuminuuna walmuminat baaduhum awliyaau baadin yaamuruuna bilmaarufi wa yanhawna anil munkar mu ne ñi gëm te di góor ak ñi gëm te di jigéen ñoom ñooy jàppalante di méngalante di jàppaloo ngir daawa bi mun a dem ci kanam ndaxte lan la ñuy def dañuy digle njekk di tere safaan ba te yoon woowu itam moo am ci beneen wàll bi almunafiquuna walmunafiqat ba'duhum awliyaau ba'din ya'muruuna bilmunkari wa yanhawna anil ma'ruf al aks bil aks mu ne yeneen kàccoor yi itam nag foo leen fekk ñooy jàppaloo kàccoor yi foo leen fekk nag kàccoor bi ci aqsa sarq ak kàccoor bi ci aqsa al garb bool seetee ñoom ñooy jàppaloo te lan la ñuy def digle lu bon tere njekk digle lu bon tere njekk bu ñu gisee ku muuru ñu diingat ko kon mooy tere njekk lan la ñuy digle kon atabarruz wa sufuur kon li ñuy digle mooy na nga tuwaaleetu génn ñu ne diwa nga waaye li ñu bëgg itam mooy na nga génnee say cër ci biti ñu ne cey moom kon boo gisee wàllu gune boo toogee ci àdduna rek da nga gis ne ñenn ñaa ngi dimbalante ci wàll gale ñeneen ñaa ngi dimbalante ci wàll gale kon nag dangay góor góorlu bokk ca ña borom bi subhanahu wa taala di dooleel ñooy ñan ñooy ñi gëm yàlla te di digle njekk di tere safaan ba allahu waliyu alladina amanu yuxrijuhum min azulumaati ila nuur borom bi subhanahu wa taala mu ne man ñii laay méngool te dema leen di génnee ci lëndëm lëndëmu bokkaale lëndëmu sàggan lëndëmu tooñ lëndëmu fen lëndëmu wor lëndëmu def lu bon dema leen ciy génnee jëmee leen ci leer leerub wéetal borom bi subhanahu wa taala leerub def lu baax leerub bëggante leerub wóoluwante leerub sàngante sutura leerub dimbalante lii ay leer la waaye al aks bil aks safaan bi itam noonu la safaan bi itam noonu la looloo taxoon mu ne ñu ñi yéeféer yi moom alladina kafaru awliyaahum taaxuut yuxrijunahum min annuuri ila zulumaat ulaika ashaabu nnaar waliyasu billah mu ne safaan bi itam ñi nga xam ne mooy yéeféer nag ñi méngoo ak ñoom mooy taaxuut leneen lu ñuy jaamu te du borom bi subhanahu wa taala def leen di génnee nag ñoom ci leer jëme leen ci lëndëm mooy ci lëndëmu bidaa ci lëndëmu sos ci lëndëmu sot sotloo ak parparloo ci lëndëmu def lu ñaaw wala wax lu ñaaw ci lëndëmu tuumalante ci lëndëmu yëkkati yonent ba jëmee ko ci palaasu borom bi subhanahu wa taala ci lëndëmu diingat ci yii rek la ñuy nekk di xuus wa kunna naxuudu ma alxaaidiin ñoom loolu rek moo leen yitteloo ndaxte même boo seetee ci alquran da nga gis ne borom bi subhanahu wa taala leeralal na yoon ba ñooña di jaar waaye leeralal na yoon ba ñi baax di jaar ñi baax ñoom mu ne ñoo xam alquran bii baat bu ñu xam la muy firi mu ngi ci ak bu ñu xamul moo yem ci ñoom ñoom daal gëm nañu ca borom bi subhanahu wa taala la jóge moo xam ayat muhkamaat la moo xam ayat mutasaabihaat kullun min indi rabbina ñoom noonu lañ ko gëmee waaye amma safaan ba nag déedéet safaan ba déedéet dañuy jéem a luññatu jéem a xam lu yonent ba xamuloon jéem a génneelu abou bakr omar osman xamuloon ba bu ñuy wax xaritu yàlla sax ñooñu bokkuñu ci mos ngeen dégg ku ne waliyu abou bakar radiallahu an osman nag abu ubayda amil ibnu jarra nag ñi nga xam ne yonent bi ne ko yaay aminul umma xeet wi yow buñ doon tànn ki ñu gën a wóolu ci xeet wi yawa waaye yaakaar naa kenn mosu leen dégg ñu naan waliyu diw moom de waaye am na yeneen awliya yu ñuy dégg ay yeneen xutba ak yeneen xaws ak yeneen yu kenn xamul li ko waral mooy réeree li borom téere bi wax mooy xam kuy sa borom xam lan mooy sa diine teg ko ci ay tegtal xam kan mooy sa yonent naka la meloon lan la jikkoo woon lan la digle woon ci lan la taxawee woon ba nga mun ciy jaar yàlla nañu ko borom bi subhanahu wa taala yombalal kon ñu baax ñi dañuy bëgg ñu baax ñi dal di leen sopp kon ci pas-pas bu sell boobu la ñuy gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam des na ci fukki at waxul jullil waxul wooral waxul asakaal waaye moom mu ngi ci lenn rek quulu laa ilaha illa allah tuflihu wax leen baat bii te texe looloo tax ñu ne mushriku makka ñoo gën a xam maana laa ilaha illa allah ci jullitu xeet yi ñu mucc ñi ndaxte ñoom dañ koo xamoon moo tax ñu bañ koo wax ndaxte wóoroon na le ne laa ilaha illa allah àndul ak fen àndul ak xeebante àndul ak wuruj àndul ak njaalo àndul ak naan sàngara àndul ak tuur deret àndul ak jëw àndul ak màggal leneen lu dul borom bi subhanahu wa taala te ñoom yi yépp ñu ngi ci kon ñu ne ñu lii duñ duñ ko bàyyi ajaala al alihata ilahan wahidan inna hada la sheyun ujaab waaw yàlla yi yépp de xaas ah salaasu mia wa ziyaada ñetti téeméer yu teg ci ay xërëm mu ngi ci biir kaaba bi ñu ne ay yàlla lañu waaw kii nag bugg a ñëw tey ne laa ilaha illa allah kon suñu yii yépp ñu sànni leen ñu ne tekkeetuñu dara ah lii doy na waar ah lii dañ ko war a seetaat lii doy na waar nafsul kalima baat boobu ci boppam bu ñu seetloo mooy dellu siwaat waaw da ngeen bugg a wax nag suñ maam yi yépp li ñu nekkoon caaxaan yaa ko wax de waxuñu ko nafsul kalima bi ñëwoon moo dellu siwaat ndaxte heure boobu ay xërëm yu ñu samp la waaye tey ay maam yu ñu topp la waaw da nga bugg a wax nag suñu maam yi yépp dañu nekkoon ci caaxaan dañu nekkoon ci réer dañu nekkoon dañu nekkoon naam suñu wuutee ak li borom bi subhanahu wa taala rëdd ci loolu la nekk kay ndaxte loolu la borom bi subhanahu wa taala waxoon teqale yi ngeen di teqale moo xam xutbu la moo xam xawsu la moo xam nuqaba moo xam nujaba moo xam nu ñu ko mun a tuddee ci ci ci ci seeni tur borom bi subhanahu wa taala leeral la in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum wa ma anzala allahu biha min sultan borom bi leeral na ko de mu ne du dara ay turu kese yéen ak seen papa yeeg seen maami maamaat yéen a ko fi sos de waaye borom bi subhanahu wa taala mosu cee wàccee ab lay doo dem mukk ci xadis wala ci aaya nga ne xutba xuus ak nangam doo ko fekk abadan moo tax ku wax ci ñoom mu ne man la may wax doo ko fekk ci qur'an ñoo ko saxal lama lay wax doo ko fekk ci téere kon foo koy fekk ci xuraafaat wal xuzabalaat ah kon mooy caaxaar rek boo xam ne dañ koy jokkalante kenn xamul fu mu jëm kon loolu dañ ciy bàyyi xel bu baax a baax borom bi subhanahu wa taala def ñu waxoon ne ku wax rek wax leen ko ne haatu burhanakum in kuntum sadiqin li ngay wax dëgg la indil lay man de li ma wax ngi nii yàlla nee na te alquran baa ngi nii mënoo koo wedd li nga mun kay mooy taawil aaya parce que ba ñu songee qur'an ñu gis ne kenn manu ci dara inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahaafiz kenn donte sa doom bi xamul li muy firi tujuza nga jàng bujuza ñaa bàyyi du noonu de tujuza la de ah gis nga manu ci dara kon nag léegi mu ne la waaw loolu lii lañu tudd ci baat bi waaye lee lañu ca namm ku la ko wax day naam ndaxte loolu mooy taawil léegi ku la ko wax kon ci anam googu nag lañu gis ne alquran moom mënul ci dara xanaa walbati firi bi ñu indil quran ñaari wàll ñu ne la lii mooy xaqiqa waaye nag leneen li ci des moom mooy sharia xaqiqa sharia boo waxee mu ne la man waxuma sharia de sharia moom mooy nit ñu doyadi yi waaye li ma la wax mooy xaqiqa waaw kon nag lan mooy nekkati dëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam de moom sharia la ñu indi loon waaye indi lu ñoon leneen lu dul loola kon yooyu yépp ay lay la waaye ba ñu munee jot xadis nag moo tax nit day toog ba mu neex ko rek mu ne la qaala rasulullah wax wax joo xam ne doo xam fu mu ko jëlee ndaxte waaw ndaxte yonent borom bi subhanahu wa taala garanti wul ne mooy sàmm sunna moom ñi fi des di ay jullit ñooñu la sàmmuloo sunna alhamdulillah salaful umma góorgóorlu nañ ba xadis boo dugal ñu ne la wérul salaful umma góorgóorlu nañ ci loolu hadis boo dugal rek buñ ko toppee càllal la ga ñu ne la ah sëñ bi sa hadis bi wérul de boo ko jëlee ndaxte won nañ ñu xam-xam boo xam ne diw moo ma nettali diw moomu diw a ko nettali diw moomu diw a ko nettali da nga ne yonent bi ne na koo tudd ñu ne dañ koy gëstu ba mu des saxaabi koo tudd rek ñu ne diw moomu nga tudd dañ koy gëstu ñu gëstu seet lu xam-xamam meloon naka la dundee woon naka la kii woon ba yooyu yépp dal di leer moo tax hadis boo wax rek am na fàtte hadis boo wax rek am na atte loolu itam mbaax bi borom bi subhanahu wa taala baaxee xeet wi la ba desalal leen fii daa iman luy tax ñu moy ci muy nekk di dëggal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci ñaari anam taraktukum ala almahajjati albayda layluha ka nahaariha la yaziqu anha illa halik bàyyi naa leen ci xàlluwu leer naññ guddi gaa ngi leeree ni bëccëg kenn du jàdd xàll woowu lu dul ku nar a alku ñaareelu xadis bi mu dal di ñu leeralal ci anam googu itam fu ngeen di jaar nekk ci kaw xàll wi taraktu fiikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan ci beneen riwa riwaaya lan tadillu baadi du ngeen réer be faw ci beneen riwaaya du ngeen réer sama gannaaw ñu ne ko lan la mu ne ko kitaaballahi wa sunnati téere yàlla bii ak sama doxalin bii ku ci mooy yem ci yow doo bokk ci ña nga xam ne dañuy réer yal nañu ko borom subhana wa taala jàppandalal baaxee ñu ko kon mu ne sax na fukki at di woote ci benn baat boobu benn baat boobu nag mooy tawxid mooy wéetal borom bi subhanahu wa taala dafa am ay charte yuy tax baat bi jëriñ muy juróom ñaari charte muy al ilmu wal yaqiinu wal qabuulu wal inqiyaadu fadri ma aquulu alsidqu wal ixlaasu wal mahabbatu waffaqaka allahu lima ahabba noonu la ko xaafiz alxakami tënki ci sullamul wusul mu ne mooy xam mooy al ilmu teg ci yaqiin mu wóor la ne lii la teg ci qabuul nga nangu ko teg ci inqiyaat wammatu ci gannaawam teg ci assidq mooy dëggu ci wammatu boobu teg ci al ixlaas dal di ko sellal teg ci almahabatu dal di ko bëgg gënale ko lu dul loolu juróom ñaar yi bu dajee ci laa ilaha illa allah boobu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne ku ko wax rek dem aljanna man qaala laa ilaha illa allah xaalisan li wajhi illahi daxala aljanna gannaaw yaa ngi ci dund waaye ba dee ñëwee nag charte amatul ndaxte bu dara desatul lu dul dee nit ki day dellu cosaan moo tax ku tiit rek dellu la ci biir xolam da ngay ànd ak doomu aadama dara xupp leen mu tiit rek kii woo seex kii woo ahmad kii woo umar kii woo bilal waaye ki gëm moom subhaanallah ah loolu mooy iman ndaxte jeex na fii dara desatu fi lu dul yaakaar nga ne alku nga ki nga yaakaar ne moo lay musal mu nekk ci sa biir xol laa shakka ci moom ngay dellu moo tax mu bañ a def foofu sartu sellal mu ne man kaana axiru kalaamihi laa ilaha illa allah daxala aljanna ndaxte dee a ngi nii taxaw malakul mawti sukuraat munoo wax laa ilaha illa allah lu dul mu nekk ci sa biir xol abadan kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax kon yooyu loolu mooy tawhid mu ne ñu ci gannaaw fukki at yooyu nag urija ila sama wa furidat alayhi alsalawatu alxams wa salla fi makkata talaata sinin mu ne gannaaw fukki at yooyu moom yonent bi ñu woo ko ngan ngir mu wuyu ji borom bi subhanahu wa taala jëm ci asamaan jóge makkatal mukarrama jëm baytul muqdas jóge fa nag jëm ci asamaan loolu la borom bi subhanahu wa taala junjune subhana alladi asra bi abdihi laylan min almasjidi alharami ila almasjidi alaqsa kii day sell na mooy kan ki rañaanee ab jaamam rañaan mooy jóg guddi def ki sell mooy borom bi subhanahu wa taala jëmee ko ci baytul muqaddas jëmee ko ci asamaan keroog la abu bakrin assiddiq radiallahu anhu am garaat ndaxte mbir mu kéemaane la loo xam ne lu mu néew néew ci gëlëm dañ koy doxee weer ñu nekk ak moom ba tëri jot te ba mu ñu yeewoo yeewoog moom mu ne leen dem naa fa ñëw naa ñu ne ko nag sa waa ji nag moom nag léegi li ñu waxoon nag am na waxoon nañ la jinnee ko topp léegi nag mbir mi leer na ñu ne ko tey moom boo déggoon lu mu wax yow ci sa bopp sax da ngay denc ci moom nag mu wóor la nag mbir mi nag léegi leer na ñu nettali ko lu mu wax mu ne in qaalahu fa huwa saadiq allahu akbar in qaalahu ah li ngeen wax day am naa ci sikki sakka waaye su fekkee moo ko wax dama ragal ne yéen a wax noonu rek waaye su wéree ne moom moo ko wax rek wax na dëgg ah kon lii mooy imaan imaan mooy gëm ki nga xam ne borom bi subhanahu wa taala moo koy sa moom borom bi subhanahu wa taala moo koy diiñ mu ne ci nganale googu nag lañu farataal ci moom julli kon ñu gis julli lu màgg la yeneen yi ci des yépp alquran mooy ñëw waaye julli moom dañ koo woo mu dal di ñëw dañ koo woo mu dal di ñëw mais borom bi subhanahu wa taala dem nag ñun muy jege di jege si muy jege di jege si ba borom bi subhanahu wa taala déey ko la mu koy déey kon ci yooyu lañuy gis màggaayu julli te borom bi subhanahu wa taala leeralal ñu ne inna salata tanha anil fahshai wal munkar julli moom day tere lu bon ak lu ñaaw ak lu ñu sib kon kuy julli des di ko def na seetaat julleem charte ya des na wala sellal ba des na wala bidaaya ëpp ndaxte bidaakat moom du texe abadan lan moo tax du texe mooy du tuub njaalokat bi dina tuub mandikat bi dina tuub sàcckat bi dina tuub waaye bidaakat ki jàpp ne moom la mu def lu baax la moom la borom bi subhana wa taala wax ne yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sun'a mu ne moom li mu jàpp ne mu ngi jëf lu rafet nit dina sarata bem yàgg ne yàlla tuub naa li ma sarata abadan moom mu ngi jàpp ne mu ngi ci lu baax kon loolu moo tax axtaru shey hiya al bidaa li gën a bon ci doomu aadama rek mooy bidaa mooy sos ab mbir di jaamoo borom bi ni te borom bi amu ci soxla te yaa ngi jàpp ne yaa ngi ci lu baax kon yal nañu ko borom bi subhanahu wa taala musal mu ne kooku nag mu di yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam dal dina julli ci makkatal mukarrama ñetti at gannaaw ba julli wàccee des na ci makka di julli ñetti at gannaaw ga nag lañ ko digal mu dal di gàddaay mooy joge makka dem madina waxoon nañu ne nag gàddaay lu fi des la alhijratu baaqin gàddaay lu fi des la ndaxte gàddaay lu ñaaw gàddaay la joge foo munul jaamu borom bi subhanahu wa taala jëm fa nga ko mun a jaamee loolooy cosaan ci gàddaay moo tax ñañu néewaloon doole ba ñu demee ba bés penc ñu jàpp ko mu nekk lay ñu ne borom bi subhanahu wa taala naam ñun de jaamu yoon ni ñu waroon a jaamoo léeg-léeg ñu def ay bokkaale léeg-léeg ñu def ay càggante léeg-léeg ñu teew ci ay bida waaw lu leen ko yóbbee ñu ne kunna mustadafina fil ard ah dañu néewaloon doole kat dañu néewaloon doole booba munuñu nu ñuy def rek xam nga njoboot gi rek xam nga quartier bi rek xam nga réew mi rek xam nga mbir mi rek mbir mbir mbir dañu néewaloon doole amuñ nu ñuy def borom bi subhanahu wa taala mu ne ah te loolu am na ñu ne waaw waaw ne alam takun ardi waasi'atan fatuhaajiru fiiha waaw xanaa foofu dong moo doon sama suuf xanaa sama suuf yaatuwuloon ngeen dal di fa gàddaay yaa ngi ci quartier boo xam ne amul jàkka waaw te nga gàddaay dem ci quartier bu am jàkka nag nga fay am foo jullee waaye nag al aks da ngaa gis tey boo doon jaay kër bu jege jàkka sax boo moytul du jar wala du am tey xanaa alladina amanu bu geesoo lii lan la jàkkam ne c'est emmerdant gis nga kon yooyu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax kon yal nañu borom bi subhanahu wa taala may dégg ak topp gannaaw li nga xam ne hijra la am na yu mu laaj ñu dal di taxaw fii di ñaan borom bi subhanahu wa taala yal nu baaxee ba ñu fekkee ko te tal ko wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullah والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi ñu sant borom bi subhanahu wa taala may nañu ñu dajewaat suñu xam-xam ngir liy wéral suñu pas-pas di al usul athalaatha ñuy fàttali mbokk yi rek ñuy bàyyi xel ci toogaay yi ndaxte am na ñenn ñuy jàmbat ca gannaaw toogaay yi def leen xaw a kii tuuti ñu bàyyi ci xel kon ñu ngi yeewoon suñu dars ci alhijratu hijra mooy gàddaay moo tax ñu ne al intiqaalu min baladi shirki ila baladil islaam hijra mooy gàddaay toxoo fuñ dul jaamoo borom bi subhanahu wa taala jaamu ba gën jëm fa ñu koy jaamoo jaamu ba gën hijra boobu nag baaqin ila tului shamsi min maghribiha des na ci islaam ñu mun koo jëfandikoo ba ñu tëj buntu tuub mooy melokaan yu bir yi yii wone bés penc ci ñëw na ñu junj ci mooy jant bi fenkee fa mu doon sowee loolu bu amee dina fekk gàddaay dootuñ ko nangu ndaxte dañ koo jàpp ci ku ko wóor ne ab dundam jeex na te ci anam googu bu amee duñu nangu tuub kon gàddaay farata lay dal di doon ci ku mu taxawee diineem moo xam génn ci réew jëm ci beneen la moo xam génn ci dëkk dem ci beneen la moo xam génn ci quartier dem ci beneen la moo xam jóge ci buntu maanaa ci néeg dem ci beneen fu doomu aadama bi ne te la tax ñu amal ko munu ko faa def war na ci moom mu daldi jóge fa dem feneen li ñu jortu nag fi nit munul jaamu borom bi subhaanahu wa taala mooy foo xam ne doxalin ba nekkul ci loxo ña gëm doonte dem nañ cib jamono ba ñu fekk ne waa islaam ci boppam dinañu dox diggante nit ak jaamu borom bi subhanahu wa taala bedootul ko mun a joxe namu waree ci moom yellee ni bi hujjati bokku leen jubluwaay te borom bi subhanahu wa taala jubluwaay ba mu nangu ñun ñoo ko bokk mooy maa lakum min ilahin xayru yonent yi yépp daje nañu ci baat boobu maanaa amuleen keneen ku ngeen di jaamu ku dul subhanahu wa taala ndaxte moom kenn mooy xaaliq kon daje nañu foofu ci jaamu kenn daje nañu itam ci roy kenn roy lawuñu keneen ku dul moom muy muhammadun sallallahu alayhi wa sallam daje ne itam ci bokk lenn muy al islaam ndaxte leneen lu dul islaam moom borom bi subhanahu wa taala mu ne du ko nangu wa man yabtagi gayra al islaami diinan falan yuqbala min këpp ku tànn leneen lu dul doxalin islaam bii duñ ko nangu ad diinu inda allahi l islaam doxalin bi yàlla nangu mooy islaam kon ñun ñépp ñu tudd jullit ñeenteel ba suñu xibla benn la ku julli jublu feneen fu dul foofa borom bi ne jaamoo booma beneen bi nga xam ne itam moo génn ci doxalinu diine ñu nekk fa benn mooy ittihaadu naw ñun ñépp suñu cosaan benn la mooy aadama hawa ñu nekk nit niroo ni ñu borom bi subhanahu wa taala sàkkee lu dul koo xam ne ci coobare borom bi subhanahu wa taala sàkkee fam am lu ci wàññeeku waaye lu loolu lépp lenn lay dal di doon boo ko gisee xam ne kii yaag moom benn ngeen nit la kon juróom yi yépp ñu dal di ko bokk te munuñu fabandoo munuñu bàyyendoo am na ci keneen ku nax boppam am na ku wax ne gëm na te gëmul shakka ndaxte am nga keneen koy dégloo ti ku dul borom bi subhanahu wa taala am na feneen fooy saxalee say xelaat te du qur'anul karim am na keneen koy roy te du muhammadun sallallahu alayhi wa sallam kon nag yii bu xesee wuute rek te doomu aadama yi aswaaq lañu am ku nekk ak bëgg-bëggam ak gis-gisinam ak sopp-soppam nga am ko ma am ko keneen am ko kon nga nekk sabab ne sa bokk jullit bi tere nga ko mënatul jaamu borom bi subhanahu wa taala ndaxte gis nga ne na muy jaamoo ak na ngay jaamoo wuute na te wuute boobu mu ngi jógee kon moom day diingat na ngay jaamoo mbir mi dal di wuute ndaxte boo buggee samp masamba nit ki ñëw ne la laa ilaha illa allah jafe-jafe tàmbale na am ndaxte loolu moo doon jafe-jafe yéeféer yi ma dem ba mooy xett li jaam yi ku àndul ak moom doo texe mooy yóbbu nit ñi aljanna mooy séddale wërsëg yi keneen ñëw ne la loolu yépp wax la waaye li am rek mooy lépp ci loxo borom bi subhanahu wa taala la nekk kon yéen ñaar seen ànd boo moytul neex wala du sori ndaxte am nga koo bugg nañ la màggalal moom mu ngi gis ne kooku nga bugg nañ ko màggal mook yow a yem amul tus te manul dara te xamul dara te ci kanam borom bi subhanahu wa taala foog nga d'accord ne kenn xamul dara manul dara tekkiwul dara te du tus loolu ngay d'accord nag ci kanam borom bi subhanahu wa taala soog koo mun a jaamu keneen nag moom mu ngi taxaw ne texeem moom mu ngi aju ci waa jii kon kooku day nekk benn pakk ngir tere la nga doxal li war ci yow nang ko doxal heure boobu nag borom bi subhanahu wa taala mu ne defal naa la génnuwaay mooy li ñuy tuddee alhijratu su fekkee moo fa sañ mais bàyyi ko ko nga dem fu mu sañul nga jaamu fa borom bi subhanahu wa taala moo tax bés pénc am na ñuy layee loola ne dañ leen nootoon rek munuñu dem mooy kunna mustatafina fil ard ñun dañu néewaloon doole rek xam nga munuñu woon borom bi subhana wa taala mu ne ko alam takun ardullahi wasiatan fa tuhajiru fiha waaw man sama suuf si yaatuwuloon nga toxu ko quartier bi munoo fii jaamu yàlla demal ci beneen quartier amatul leneen lu la fi war a mun a teg lu la mën a teg ci gox boobu loolu moom amatul danga faa war a jóge dem jaamu ji borom bi subhanahu wa taala dal di ànd ak moom gannaaw ba nga toogee nag defuloo loolu am na leneen lu la gënal borom bi subhanahu wa taala am na leneen lu la ko gënal lu dul borom bi subhanahu wa taala hijra bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama tatbiq na ko maanaam appliqué na ko ci njëlbeenu daawa muy woote ndànk-ndànk ci nëbbatu dañu am ab lim borom bi subhanahu wa taala ne ko jéego boobu nag war nga koo romb fasda bi ma tuumar wa aarid anil jahilin ah léegi nag lañ la digal léegi nag jog ci wone ko yëgle ko te luñ la def bul fayu nekk ab jafe-jafe coono dal di am borom bi suba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne sahaaba yi léegi li fi sës mooy ñëw leen rawali seeni pas-pas na ngeen dem rawal seeni pas-pas te jàpp na ne fa ngeen ko mun a rawalee mooy habasha mooy éthiopie léegi mu ne ndaxte am na kilifa bu fa ne mooy najaasi moom day du tooñ kenn te du bàyyi kenn mu tooñ kenn moom daal ci moomelam doomu adama day libre du la bàyyi nga tooñ kenn waaye du seetaan keneen dal di la tooñ sahabatul kiram dal di bàyyi seeni ñoñ dal di bàyyi seeni soxna bàyyi seeni moomeel dal di gàddaay jóge aljazira dal di wàcc si afrique nekk fa ab diir ñu dégg ab soppeeku ab ab déggu te loolu la ñu déggoon amut ñu delluwaat ñu gis ne mbir mi dafa taraab yonent bi ne leen delluwaat leen ñu delluwaat bi yoon nag ak délégation bu mag bu ànd ak ay góor ak ay jigéen juróom ñetti fukki góor yu teg ak ay jigéen ba ñu demee ba foofu itam yéeféer yi bàyyiwuñu Quraysh ndaxte jàpp nañu ne bu fa saxee xëj na dina leen indil ab jafe-jafe wala ñii dañu war a am ay jafe-jafe ndaxte ay gone yu génn topp lañu ni ñu koy déggee léegi ci jamono en tout cas ñi demoon ay borom kër la de ñoom Osman ibn Affan ñoom jaafar ak ñeneen ñu mel noonu mais jàpp nañ leen gone yu génnu topp comme niñ koy déggee léegi rek maanaa loo mun a def boo bàyyi ca kër ga ak soxna ak ay doom itam yow dañ laa jàpp ne daal gone nga waroo génnee sa xelaat waroo mun a def dara waroo mun a tekki dara dangaa war a wéy ji aju ci diinal islaam yi moom gisewul loolu daa bàyyi ku nekk ak libertéem mu dal di tànn gannaaw ba mu tànnee nag bu delloo gannaaw ñu ne nañ ko génne ci société bi bokkatu nañ ko rey gannaaw ba islaam moomee nag islaam ne ku nekk moom sa kër de waaye li ci biti moom islaam moo koy gérer gëm nga gëmoo da nga respecté biti bi moom doo fa def lu ñaaw doo fa digle lu ñaaw doo fa jëflante lu ñaaw amma sa biir kër sa ron lan nag yaa xam lan ngay dal di def foofu kon mu ne nañu delluwaat ci delluwaat boobu nag quraish dal di tànnaat ay nit yónni leen fa xaalid ibnul walid ak amr ibnul as ñu ne nañu dem ci najaasi won ko ne ñii ay xale yu génn topp lañu te boo leen fi bàyyee ci yow lañu jëm ñu dal di ñëw gannaaw najaas yi moom xamee nañ ko ne duñu tooñ kenn fi moom te du bàyyi kenn tooñ kenn mu ne kon nañu daje waxtaan ne ñii ay xale la yu génn topp lañu dañuy xas waajur yi respecté wuñu mag yi suñu lu ñuy jaamu loolu lañuy wetti te yow mii muccoo ci ndaxte li ngeen gëm ak li ngeen fas ñoom loolu lañu weddi boo déggoon li ñuy wax ci mariam ni kon doo leen fi bàyyi waaye moom itam mu taxaw taxawaayu kilifa mu ne ba ma dégg ci ñoom ñoom ñu dal di leeral ne ah ñun dey aw xeet lañu woon xeet wu réer xeet wu tekkiwul xeet wuy naan sàngara xeet wuy njaalo xeet wuy xeex xeet wuy nangu moomeeli ñeneen borom bi baaxeeñu yónni muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu dal di ñu gindi ne kenn lañu war a jaamu alalu jaambur dafa xaraam mbir yi ñu tudd nii yépp yooyu dafa xaraam mu delloo ñu ñu dal di nite mu ne ko nag ñu ne yéen a ngi wax ci mariam mu jàng suuratu mariam kooku dal di ne moom na jaasi mu ne maa ngi leen di gëñal ne day la nga xam ne moom lañu wax ak la isa bnu mariama waxoon yokkuñu ci lu toll ni bant bii mu won leen nag kon am ngeen liberté dundu leen la ngeen gëm fii kenn du leen fi tooñ kon ñu gis hijra moom jëlbeenu islaam moo dal di ànd ñetteelu hijra mooy gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii yépp te doon yeble ndaxte moom al foog mu jot ndigal ba mu jot ndigal nag génnal makkatal mukarrama demal madinatul munawwara foofu ngay sosee lii nga xam ne mooy dawlal islamiya ci madina boobu wala ñu yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam booba ahlul kitaab ñoom demoon nañ xaar ko fa ndax seen yonent waxoon na nettali leen ko ci seeni téere ki ñuy mujja yónni fan lay dëkkee ci benn xur bu am ñaari doj yu rëy yu am ay tàndarma melokaan ya ñu leen joxoon ñu wër adduna bi yépp gisuñu ko lu dul madinatul munawwara banu nadir dal di fa dëkk banu qurayza dal di fa dëkk banu qaynuqaa'in dal di fa dëkk di fénqale waa dëkk ba nag ñuy xeex diggante awsu ak xasraj ñu leen di wax ne ki ñuy mujje yónni dina ñëw ñu gëm ko faagaagal leen loolu moo leen indi woon madinatul munawwara loolu moo fa indi woon salmaanul farisi ndaxte moom bokk na ci ku ñu baaxee dund ndaxte téere tarajim yi ñuy nekk li ci ab dundam ñetti téeméeri at ak lu teg moom itam da doon wër di làmbatu dëgg ba mu dal di ñëw foofu ci biir làmbatu dëkk dëgg boobu mu dal di fa dëkk ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal di gàddaay dal di ko fa fekk kon lii nga xam ne mooy gàddaay kon nekk na mbir moo xam ne islaam ci boppam de ko dal di màggal te dafa am ngéneel laay wone ngéneelu gàddaay mooy waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñu lawla al hijra la kuntum ru'an min al ansar mu ne bu fekkoon ne du ngéneelu gàddaay gàddaay ni mu baree ngéneel fekkoon ne du loolu dinaa askanalee sama bopp ñu askanal ma ci waa ansaar ñi nga xam ne ñoo fatoon ña ñu génnee loolu luñ ciy déggee mooy màggaayu gàddaay ak màggaayu ansaar ndaxte waxoon nañu ne al imaanu yaaruju fi lmadinati kama taaruju lhayyatu ila zikrillah mu ne is iman day day yol di roogat di dugg ci madina ni jaan di yolee di dugg ci ak paxam mu ne itam madina tanfi lxubusa kama tanfi alkiiru alhadid ne lii nga xam ne mooy madina dina dàq lu bon nit ku bon mu ne madina da koy dàq imma dàq ko du fa mun a ne wala génnee mbon nga nekkoon ci xolam ni nga xamee ne noonu la liin di fompee ab weñ kon madina ci boppam dafa am ay ngéneel loo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man istataa an yamuuta fi lmadinati falyafal képp ku man rek ngir faatoo madina na ko def moo tax ku mos a dëkk madina boo ne dangay toog yonent bi tere la ne déedéet kenn du dëkk madinatul munawwara dal di ko génnaat te muy doon sa sago ndaxte mooy fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaay dal di jëm te la fa la tàmbalee lii nga xam ne mooy réewu jullit maanaam islam dal di géré yonent boobu ba mu fa ñëwee la mu tàmbalee mooy néegu borom bi subhanahu wa taala ndaxte islam munul dem te jàkkadi ko suñu jafe-jafe suñu réeroo moo mooy dañu joxul jàkka gëddam bàmmeel lañ gën a fonk ci kaw jàkka lii mooy suñu jafe-jafe waaye bu la wóoroon ne boo jëmee jàkka ja tàggoog sa bàkkaar am ay daraja jaamu borom bi subhanahu wa taala dajeeg sa mbokk yu jullit ni kon dinañu jaral te itam dinañu taxaw lii nga xam ne mooy jàkka jàkka nag niñ koy taxawee mooy yàlla ne na yonent bi ne na bépp jàkka bu taxawewul loolu xaaral ab mabbam wala boog la muy tëjoo ëpp la muy ubbeeku wala la muy yàq mu ëpp la muy defar benn rek ci yàlla loolu imma allahu akbar asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu dal di ko tëj dem seen yoon kon jàkka defatul loolu li nga xam ne moo taxoon jàkka jóg wala jàkka bi sampu sampu ci ay bidaa te bidaa moom ci sot sotloo ak parparloo rek lay doon ci ak alak boromam ndaxte fi nga askanalee sa bopp nga ne sa bidaa ngay samp ca jàkka jooja waaye waaye waaye nag am na ku gëmul li nga gëm nag am na loo xam ne li nga gëm yow ci sa bopp ni mu réyee ci yow noonu la soofee ci moom kon kooku dina ko jaral mu bàyyi jàkka ja wala muy julli si ci jàkka ji ci ab xat-xat kon loolu moo tax jàkka yàlla nee na yonent bi nee na nako yonent bi sallallahu alayhi wasallam sampee woon ca madinatul munawwara noonu rek la jàkka di demee dal di defar lii nga xam ne mooy doomu adam jàkka day nekk jàngu jàkka day nekk tàggatukaay jàkka day nekk dajewaay jàkka day nekk ñëw ngir nemmeeku sa mbokk jullit nga xam ne foo ko bugg a gis rek nga ne balaa may dem kër ga a waxtu julli jot na de bàyyil ma dem jàkka ja dinaa dajeeg moom naam jàkka jooju mooy ji nga xam ne mu ngi jëf la nga xam ne looloo tax ñu samp ko loolu nag munul ne mukk lu dul ñun ñépp ñu daje ci li ñu dajale bu ñu dajee ci li ñu dajale rek jàkka jooju dina def la nga xam ne moom moo yey moo gën buñ fa dajee jàng téere borom bi subhanahu wa taala leeral sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal di ko roy foofu moom ab déggu ak jàmm ak jaamu yàlla moo fay war a ne waaye boo ñëwee nag nga ne ma sàmba nga fay samp wala ma demba bu dee sab maam mbaa sa baay waaye waaye ñi fi daje ku nekk am na maam am na baay bu dee sab soppe ñi fi daje ku nekk am na soppe kon lépp lu yàq jàkka yi loolu bokk na ci li nga xam ne moo ko yàq mooy bidaa bu fés bi bu ñu dellu woon gannaaw bàyyi ko rek delloo jàkka ab róolam rek duñu dem at wala ñaari at lu dul islaam yilis na lépp lu dul déggoo am na ci lépp lu dul xam-xam mat na jàkka bu ne bu taxawoon ci taxawaay boobu ku réeree diineem dootul dootul des abadan ku réeree ab diineem dootul des yaakaar naa fii ñu toog dalil la ci anam boobu amagul at ci liñ ko ubbi mais yaakaar naa ne léegi ñu dem ci ñeenti hizib yoo xam ne gannaaw fajar rek trente minutes wala lu ko ëpp tuuti mbokk yi léegi jàng nañ lu tollu moom lu amagul at yaa ngi romb ñeenti idib waaye bu la borom bi subhanahu wa taala baaxee nga dund fukki at mbaa kaamil bi du jeex kaamil bi dina jeex kon jàkka ji jeexal kaamil bale jeexal kaamil beneen jeexal kaamil beneen jeexal kaamil bii jeexal usulu salaata bii jeexal sullamul wusul bii jeexal taysirul allaam bale jeexal bulughul maram nga dem bale jàkka jeexal ko bale jàkka jeexal ko bale jàkka jeexal ko hal sa yabqa baynana jahilun bu réeree diineem dootul des waaye gannaaw nag mbiru ma sàmbaat dem nga ca service ba ba bëggatu la gendarme la woon bëggatuñ la duwaañ nga woon bëggatuñ la liggéeykat nga woon bëggatuñ la autorité ba nga yore woon fële nag nga ne den ko amal ci néegu borom bi subhanahu wa taala te laa jamal laka wala naqa xamoo dara du aaya bu baax du hadis bu wér lenn xamoo ko te nga taxaw na nga ne da nga fa tekki dara wala da nga fa am kàddu kon yow yennu loon sax ñu ko nga am fa benn considération sappul awwal bi sësat imam sax waroo fa taxaw kon jafe-jafe yii nag mooy suñu jafe-jafe ci suñuy jàkka kon ci yooyu nag lañu war a taxaw ngir loolu dal di deferu ngir jàkka delluwaat ca na ko yonent bi sal allah sallam defee woon borom bi subhana wa taala defee ko ni wa anna almasajida lillah jàkka yi daal yàlla la warul am sant jàkka ñooy ñoom diw yàqute am loolu mooy yàqute jàkka moom dafa war a rek nekk jàkkaab yàlla borom bi subhanahu wa taala ah lu dul def tur bu ñu tànn nga xam ne ñépp a ko bokk jàkka abu ubayda jàkka umar ibnu alxataab jàkka usman ibnu affan wala jàkka unité 17 wala jàkka 26 na yooyu ay tur la ngir xàmmeekaay waaye bu delloo rek ci tur boo xam ne ngir feddi li kuréel kon yàqute dal dina am ndaxte kuréel boobu moom munoo muusaka waane ba ñépp dal di ko gëm kooku moom munuloo ko abadan ndaxte la laysa min al islaami shay bokkul ak dara ak islaam ndaxte islaam dëgëroon na islaam matoon na islaam tekki woon na islaam géré woon na te loolu nga topp gëm ko amul kon loolu nga topp gëm ko dañ ko faa sof te bés pénc dañ la koy delloo borom bi ne aw ma ci soxla kat ndaxte man mataloon naa samay mbir te lii bokkul ki ma tànnoon yónni ko mooy muhammadun sallallahu alayhi wa sallam jotewul ak dara ak sawaay sawaay da koy gëm dal di texe da koy roy ñu dal di ko nangul waaye su ko gëmul royu ko bu àggee bés pénc ñu tàngal di gëm kooku moom ku nekk ngëm bu dëgër boobu la war a am kon lii bu amee rek dinañu mun a déggoo ci néegu borom bi subhanahu wa taala kon yal nañu ko borom bi baaxe kon gis nañu ci anam googu ba yonent bi gàddaayee mooy jéego bu njëkk bi mu njëkk a def jéegoob ñaareel mooy ata aaxi ta aaxi mooy ñii joge nañu makkatal mukarram amuñu dara ñii ñooy waa madina ci ñoom la ñuy sukkandiku ba mun a def dara mu dal di leen mbokkale mooy ee diw diw mooy sa mbokk ee diw diw mooy sa mbokk ee diw diw mooy sa mbokk keroog mbokkale googu ba mu matee ku nekk daa dem xaaju moomelam xaaj ab moomelam mu ne gan gi jëlal bu dee ab kër mu xaaj néeg ya lale yaa ko moom bu dee alal mu dal di ko xaaj lale yaa ko moom bu dee ay jàkki mu dal di ko xaaj yale yaa ko moom ba kenn dal di xaaji soxnaam ba kenn dal di xaaji soxnaam ka nga xam ne moom lañ ko mbokkale woon mu ne ñaari soxna laa am tànn ci ku la neex ma jéggal ko jox la loo def ci moom bu idda ba jeexee nga jël ko waaye ki nga xam ne mooy muhaajiruuna ñoom itam ñu ne won leen ñu rek yoonu mars loolu bu ngeen ko defee rek jazakumullahu xayran kon ñu gis ñaar ñii ci la islaam tabaxoo ci ñaar ñii la islaam amee ak ndëgër laay gannaaw ba yonent bi ñëwee ci madinatul munawwara ba def lii nag dal di ko ñetteelee nag woo ñépp nag ndaxte ñoo bokk dëkk bi nag gannaaw ba ñu wuutee ci diine wuutee ci giir xeexoo moo amoon ci diggante arab yi ci awsu ak xajraj fexe na ba mbokkalee ñëgëm ak waa makka léegi nag mu ne ñi bokk dëkk bi yépp nag nañu ñëw moo xam ku gëm ak ku gëmul yahud ak arab léegi ñu dal di signé ñu signé nag noon bu ñëwee song si madina ñépp ay génn xeex ak moom amma nag muhammadun sallallahu alayhi wa sallam bu bu génnee bugg a songi noon ca biti moom dong ak ñi ko gëmay ànd ñeneen ñi moom seen yoon nekkatul ci loolu ñu dal di signé loolu quraish dal di dugg génn ba yahud yi génn ca lañu signé woon loolu moo doon sabab ghazwatul ahzab gannaaw ba ñu génnee ci loolu nag borom bi subhanahu wa taala baaxee jullit yi ba ñu mucc ci fitna boobu ñii nga xam ne ñooy banu nadir yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen abal leen ma madina abal leen ma madina ñu dal di fa génn dem xaybar ba islam dëgëre itam ñu ubbi waat xaybar ñu dal di jéggi dal di dem ñii nga xam ne mooy banu qurayza ñoom ñu ne ñoom daal dañoo amoon ñu ñu allié woon ca madina te allié boobu ñu defoon dañu tànnoon koo xam ne mooy kilifa ci wàllu arab yi ci wàllu madina di saad ibnu muaz kon ñoom déglu yonent bi ñoom saad la muy déglu yonent bi ne leen waaw may naa leen déglu leen saad mu dal di àtte suñu diggante ñu dal di woo saad gannaaw ba ñu leen wóoree lu tolloog ñaar fukki fan ak yu teg ñoom ñu ne àtteeg saad daal lu mu wax rek d'accord nañu yonent bi ne kon saad àtteel ci diggante bi saad ibnu muaz radiallahu anhu mu ne man daal la may atte mooy këpp koo xam ne rek góor nga te attan nga ngànnaay ci banu qurayza këpp koo xam ne góor nga maanaa kallafe na ba mun a yore ngànnaay ñu ne waaw mu ne nañ ko rendi ñeneen ña nañu leen def ay jaam mbir bi jeex yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne allahu akbar atte bi nga atte mooy fawqa sab'i samawat ñu dal di tanfis atte boobu islam am na ab ndëgër laayam islam dal di géré ba gannaaw ba nga xamee nag julli di dal dinañu doyadiwaat ñu dal di delluwaat cib noteel te bu ñu delluwaatee cib ndëgër laay itam dañuy delluwaat cib moomeel kon lii nga xam ne mooy gàddaay lu ama am solo la li muy am solo yépp nag am na lu koy yóbbaale mooy niyatun saalihatun maal ixlaas mooy yéene bu sell bu ànd ak sellal la ngay jëf ngir yàlla dong gannaaw nag aduna moom daa ànd ak ay masaalix foo dem rek ay jafe-jafe am ba ñu yégee ñàggaddaay teeru ba ñu leen teeru am nañu desoon makka nag ñoom itam ñu dal di profito dal di wax ne léegi nag am nañu occasion ku amuloon kër war ngaa dem madina ku amuloon alal war ngaa dem madina ku ñaanoon ab soxna kilifaam dal di bañ soxna yooyu gàddaay nañ nekkatuñu ci seeni kilifteef léegi yonent baa fa ne man ngaa waaxu dem madina ndax jot fa dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag dal di leeral nag taxawaay bi mu ne nag ah lii nga xam ne mooy hijra nag moom lu war la ci képp koo xam ne munatul jaamu borom bi subhanahu wa taala namu soxlaa mu ne loolu nga xam ne mooy gàddaay nag man kaanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه mu ne képp koo xam ne nag sa gàddaay la taxoon nga jóg dal di gàddaay mooy yàlla ak yonuntam yàlla bi ma ana yool bi yaa ngi ko jot ci borom bi subhanahu wa taala ak yonuntam bi ma ana yaa ngi roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te fas yéene jàppale ko ca la muy woote mu ne képp koo xam ne nag looloo tax nga jóg ah fa hijratuhu ila allahi wa rasuli kon yow sa gàddaay àgg na borom bi subhanahu wa taala gis na sa taxawaay nangul na la sa taxawaay koy yonent baa ngi noonu gàddaayal dem jàppale ko ammaa nag koo xam ne li taxoon nga jóg mooy aduna mooy bëggoon nga tool amoo ko bëggoon nga kër amoo ko mu ne képp koo xam ne looloo la yëkkati nag wala am na kat jigéen booy dabi mag madina ndaxte léeg-léeg nga ñaan nit rek kilifam ne la ah déedéet duma la ko may de yëg nga nag soxna soosu génn na ci kilifteefam ah da ngay ne lii de moom occasion la naa jéemaat occasion boobu nag dafa amoon am ñu ko doon jéemaat yonent bi nag dal di fàtt bunt yooyu yépp mu ne képp koo xam ne nag benn ci ñaar yooyu taxoon nga jóg nag aa yow nag boo ko amee ci aduna xalas am nga waaye boo ko ñàkkee ci aduna ñàkk nga aduna ak allah ndaxte dara nekkalu la ca borom ba subhanahu wa taala te jotee wa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dara kon cib gàttal loolu mooy gàddaay amma cib yaatal nag gàddaay mooy man haajara an maharimillah gàddaay cib yaatal mooy dal di sori lépp lu borom bi subhanahu wa taala tere lépp loo xam ne borom bi tere na ko rek nga dal di ko sori dal di ko bàyyi kon loolu itam dañ koy jàppee ab gàddaay la ñaari gàddaay yooyu yépp nag valable nañu ba borom bi subhanahu wa taala jeexal adunaam bi dal di atte jaam yi moo tax mu junj ko ci quranul karim mu ne إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قال أو قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك أسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما borom bi subhanahu wa taala fii la leeral gàddaay mu ne ñi nga xam ne day ay malaaka dinañu leen faat maanaa dinañu faatu fekk ba ñuy dee zaalimi anfusihim dañu tooñoon seen bopp lan mooy tooñ sa bopp mooy des di dëkk ak yéefér te manoo jaamu sa borom bi subhanahu wa taala mu ne ba ñu demee ba bés penc nag ñu wax leen waaw yéen fu ngeen nekkoon indiw leen lenn ci biyu waaw fu ngeen nekkoon jaamu yàlla moom gis ñu dara lu valable lu ngeen indi kon fu ngeen nekkoon ñoom ñu daal di wax ne ñun day dañu doon néewal doole ñun day ñeme wuñoonaa julli ñun day ñeme wuñoonaa def xabdu ñun day ñeme wuñoonoo muuru te bés bu ne ñu gis ko ñu génnee ngir loolu ay xale yi ñu génnee ngir yar nañu ay sikkim ngir ñu ngi xabdu ñu génnee leen ci ay kër ay xale yu jigéen yu ñu génnee ngir ne ñu ngi muuru ñu ngi def ay hijab dafa fees dell ci dëkk bi fees na dell ci dëkk bi ñu am jafe-jafe yu mel noonu loolu nag ñu ne leen ah waaw loolu moom moo am ba ngeen noppi nag jaamootu leen borom bi subhanahu wa taala waaw ndax nag suuf si yàlla si yaatuwuloon buñ la teree fii nga dem fan ko mun a jaamu xanaa loolu moom amuloon ngeen dal di gàddaay mu ne ñii ñi ñu tere jaamu borom bi subhanahu wa taala ñu nangu ko dal di toog mu ne ñooñu leen seen dëkkuwaay ëllëg mooy jahannam dal nañu ko borom bi subhanahu wa taala musal mu ne ndaw mujjantal bu bon mu ne mujj bu ñaawa gi noonu jahannam mu ne nag lu dul kon am na ñu ñuy néewal doole te dañu am bàkkaar mu ne lu dul ña ñuy néewal doole ñu nekk ay góor fekk manaluñu seen bopp ku ñu néewal doole mu nekk góor te manalul boppam manalul boppam nag imma mu wéradi wala mu làggi te manalul boppam kooku na naxante na mu manee mu jaamoo noona wala muy ay jigéen wala muy ay jigéen mu ne jigéen itam na naxante ba borom subhanahu wa taala may ko borom kër mu libre wala muy ay xale yu masooragul mu ne ñoom itam nañu naxante ba ñu dal di masoor ñu libre mu ne ñii day bu dee ñii ñii moom borom bi subhanahu wa taala dina leen jéggal ndaxte laa yastatiuna hiila mu ne ndaxte amum pexe moo tax ñu naan ñàkk pexe pexe la amoo pexe kon loolu dangay naxante ba jot ca la nga xam ne loolu mooy pexe mu ne ndaxte ñoom amuñu yoon bu ñuy jaar ndaxte mënuñ jaaral seen bopp yoon koo xam ne mënalul boppam yow dangay aju ci nit rek moo la manal ah kooku nag moom bu la bundu xatalee na nga muñ wala ab jigéen nga xam ne boo génnee ku lay fat ndax sa mahram lay doon wala leneen ak leneen donte nag gàddaay ci màkka am na jigéen ñu gàddaayoon ndaxte ànd nañu ak ñu ñu wóolu ndaxte ànd nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te heure boobu mooy kilifa moom mooy kilifa donte nit ak doomam waaye heure boobu yonent bi kilifa ba ñu demee nag ba ñàkk kilifa boobu te diinal islam yi li muy tëral lu yaatu laay dal di doon moo tax jigéen buñ ko bundu xatalee na dal di muñ dal di farlu moom itam ak xale moo tax mu ne ñooñu dey borom bi subhanahu wa taala dina leen jéggal ndaxte borom bi subhanahu wa taala ku yaatu jéggal la looloo tax daawa bi maanaa woote yàlla bi war naa xelaatal ñooñu ñu manalul seen bopp ñu ngi leen di bundu xatal jigéen ñi ñuy bundu xatal loolu nag benn solution moo am ci anamu jigéen ñi ñuy bundu xatal solution bu yaatu ak solution bu gàtt solution bi nga xam ne mooy bu gàtt bi mooy fexe denc leen mooy shabab yi yëgu ci sunna nga gis shabba boo xam ne génnee nañu ko ngir sunna waaye waaye nañ fexe denc ko maanaa mu génn cib xat-xat génn cib jafe-jafe te yow itam loolu den koo aajo woon ñu dal di ànd ngir yàlla loolu mooy solution bi nga xam ne nag moo gën a gaaw beneen bi itam mooy xelaat ay dëkkuwaay yu ñuy fatee ñu mel nii ñu xelaat ay dëkkuwaay yoo xam ne bés bu jafe-jafe amee ci dëkkuwaay yii la ñuy fatee ñu mel nii mu nekk ab jàngu ab ak tàggatu maanaam mu nekk ak jàngu bu ñuy jàngee ak diine ab ak xalal la bu ñuy tàggatu ngir ñu mun a résister ngir ñu mun a def ndaxte ki ñu génnee ci këram mu dem feneen fa muy tàggatu ba heure bu muy dem di nuyu ji mbokk ya bu demee bàyyi fa dara ah bu yàggee ñoom ci seen bopp dañuy am déception lan moo taxoon ñu génnee leen kon keneen dootul dem ci lu mel noonu waaye su fekkee nag suñ ko génnee mu nekk ak jafe-jafe dem wër fu nekk dal di dellu si waat la taxoon ñu génnee ku ñu ne loola rek mu dal di génn ca loola ah loolu day wone yàccaaral boo xam ne ay jullit yi defoon nañu kon waroon nañu xelaat ay dëkkuwaay yoo xam ne mbirub xaral la dañ ko fay def naka la ñuy bindee naka la ñuy ñawee naka la ñuy liggéeyee bu nekk ay centre yoo xam ne dañ fay def ay xaral la yoo xam ne dañ koy génnee di ko jaay kon bu yàggee ñooñu ñu fat foofu dañuy dem ba mun a yore seen bopp ba mun a fataale ñeneen nga xam ne njëriñ day génn ci ñoom kon ña leen génnee woon dañuy delluwaat gannaaw ngir njëriñ boobu kon yooyu ay xelaat la yoo xam ne ay yéego la yoo xam ne jullit yi dañ ko war a xelaataat bu baax a baax ñu gis itam borom bi subhanahu wa taala dal di ñu wax ne ya ibadiya alladina amanu inna ardi wasia fa iyaya faabudun borom bi subhanahu wa taala mu ne e yéen sama jaam yi gëm na ngeen yëg ne sama suuf si yaatu na de du parcelle rek de te du dakar rek te du sénégal rek sama suuf si yaatu na te na ngeen ma jaamu man dong maana foo ma munul jaamu toku fa dem fi nga xam ne foofu nga ma mun a jaamoo mufassir bi nga xam ne mooy albagawi mu ne sabab bi taxoon aaya bii dal di wàcc ci jullit yi mooy ñi nga xam ne desoon nañu màkka bañ a gàddaay ñi desoon màkka ci diggante yéefér yi ñu bañ ñu ne ñoom day gàddaayi ñu ñu ne aaya bii bokk na ci sababu wàccam mooy gaa yooyu la aaya bi doon gaaruwaale naan def nañ loo xam ne du yoon def nañu loo xam ne du yoon léegi nag mu de des benn masala boo xam ne moo sonnal léegi aalamul islamique gannaaw gàddaay dangay génn ci réewu boo munul jaamoo borom bi subhanahu wa taala réewu kàccoor nga jëm ci réewu jullit léegi nag li ñu seetlu mooy contraire bi mooy gàddaay réew ma ñu doon jaamoo borom bi subhanahu wa taala jëm ci yeneen réew yoo xam ne mooy réewu kàccoor ngir defar sa yaxantu léegi loolu la ñu seetlu léegi tukki yépp mooy jóge ci réewu islaam dem ci yeneen réew yoo xam ne doxaluñu fa islaam léegi nag loolu lan mooy àtte boroom xam-xam yi wuute nañu ci anam googu waaye la nga xam ne dëppoo nañu ci mooy na fekk kaay dem pas-pasam leer na pas-pasam dëgër na te moom ci boppam xej na ku mu jeexantal ci moom waaye joortuwuñu ne am na keneen ku mun a jeexantal ci moom ndëgërlaay boobu bu amee ñu ne loolu kon maslaha la kon loolu mun naa nekk buntu daawa ndaxte diine ji boo seetee li ko tas mooy loola nga xam ne bu fa demee day wane jikko day wane jëflante bu rafet day wane ndëgërlaay ci diine ba nga xam ne moom la mooy ba ñeneen ñi muy jëflante sopp jëflante boobu ba mun a tàbbi ci biir diine ji ñu ne bu melee noonu day kon jëm ca loola day nekk lu valable day nekk lu diinal islaam yi mun a nangu waaye contraire bi bu amee du dagan ci yow nga dal di ko def kon nag ñun li ñu seetlu mooy contraire bi li ci ëpp ñu fii jóge dal di dellu si nekk ñu yàqu complètement insalaku anil axlaaqi nihaiyan lii nga xam ne mooy defal doomu aadama moom pare nañ ci mooy jikko jikko moom dina fekk jeex na ci ñoom abadan bu anam boobu amee nag di kon la yonent ba waxoon mooy dal di dellu si aduna moo tax nga jóg kon aduna nag ku mu tax nga jóg kon bés penc bul yedd keneen yeddal sa bopp kon ñi nga xam ne dañuy tukki nañu bàyyi xel bu baax a baax a baax ci seen diine kon la leen di dimbale mooy nañu jàng diine ba ba xam ko pas-pas bi dal di nekk pas-pas bu dëgër bu ñu demee foofu itam fas yéene jeexantal ca ñañuy daje ci seen jikko bu rafet ci seen jëflante bu rafet ci seenu farlu ci seenu respecté ci seen liggéey ci seenu yéene nit ñi jàmm ci seenu set ci seenu neex a jëflante anam bi bu melee noonu da ngay gis ne nit ñi dañuy xemem loolu dal di dugg ci diinal islam yi am maanag su fekkee valeur yooyu nga xam ne mooy ay jikko yow boo demee jikko ya nga sa fekk yooyu ngay dal di jël ba raw seeni borom te jikko yooya loolu nag moom day nekk ab fitna kon ñu ngi ñaan ci borom subhanahu wa taala yàlla nañu woon dëgg ba ñu xam ne lii mooy dëgg mu wërsëgal ñu xol mu koy nangu waaye yàlla nañu woon caaxaan ba ñu xam ne lii mooy caaxaan mu wërsëgal ñu xol boo xam ne da koy bañ dal di ko sib kon lii nga xam ne mooy hijra des na yàlla nañu borom bi baaxee ci ayu bés bii ñëw ñu man ko te tal ko wa axiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullah
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله بقي شكي ولبرم بي tàggoo bi ñu tàggoo woon borom bi dëggalal nañu ko dajewaat nañu ngir mottali maani ak fawaid alhijra ay maana ak ay njariñ yi ñuy jëlee ci gàddaay junjoon nañ lan mooy maana gàddaay ñu ne mooy jóge ci réew bu atteewul islaam
nga jëm ci réew bu koy attee junjoon nañu foofu ne lu war la fekk sabab baa ngi fi mooy manoo jaamoo borom bi subhanahu wa taala nim ko farataalee ci yow kon toxu foofa ngir jaamu borom bi day nekk lu war seppi woon nañ ca ñooñu itam ñu manul fi ay góor ba ay jigéen ba ay xale ñooñu dañuy bokk ca ñañuy jéggal waaye ñu dul ñooñu borom bi subhanahu wa taala mu ne dina leen indil jafe-jafe ndax munoon nañu toxute defuñu ko tegtal boobu bi wone gàddaay ci lañuy tàmbalee tey ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moo ko faratal niñ ko waxee jóge ci réew mu attewulul islaam nga jëm ci buy atte islaam te sabab ba bu xesee ba taxaw dëppoo nañu ci waram moo tax fii dalil bi al muallif rahimahullah dal di ñu wax ne الدليل على الحجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الحجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس min maghribiha kon ci yooyu muy tegtal bi ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tëralal mu ne lii nga xam ne mooy gàddaayi attem bi du dog maanaa warteef bi day des di war be ñu tëj buntub tuub te mu ne buntub tuub kenn du ko tëj lu dul jant bi dafa fenkee sow mu bokk ci alaamaat shaa al kubra mu bokk ci màndargaay bés penc yu mag yi nga xam ne bu fa jant ba fenkee rek dara desatul lu walu bëft bi te ku tuubati dootuñu ko nangu su fekkee ne tuubuloon ànd ak imaan amma su fekkee nag ku yore woonu imaanam la kooku moom bu ñaanee dinañ ko nangu bu jaamoo dinañ ko ko nangu kon lënkale nañu waru gàddaay ak buntu tuub suñu tëjee buntu tuub rek ndaxte borom subhana taala dootul nangu ku nanguwuloon dara kon ku toogoon ci yéeféer yi tam bañ a gàddaay ba nga gis ne jant bi fenk na sow nga ne ah bés penc ñëw na bàyyil ma daw ngir buftu bi fekk ma ca réewu ñëgëm loolu dootul jëriñ kon ci loolu fii ñu gis ne kon gàddaay lu war la féeg borom bi subhanahu wa taala mu ngi nangu tuub te tuub nag day wéy ñu koy nangu féeg alaamaatu saa al kubra ñëwagul mook feeg jant bi fenkeegul sow masihu dajjal rombagul isa alayhi salaam wàccagul feeg mbir yooyu amul ku tuub borom bi subhana wa taala mu ne dina ko nangul donte yéeféer la woon naam donte bu ñëwee mbir yooyu kon dootuñu ko nangul loolu dàqantewul ak xadiis abdullahi ibnu abbas radiallahu anhuma fim ñu doon waxee ne laa xijrata bada alfatxi walakin jihaadun wa niya maanaa gàddaay amatul gannaaw bu ñu ubbee makkatal mukarrama waaye li ci des mooy góor góorlu ak yéene góor góorlu ak yéene bu rafet maana hadis bi wonewul ne waratul waaye li muy wone mooy joge makka dem madina moom warteefam jeex na ndaxte sabab ba amatul sabab bi mooy alkufru mooy ab kéeféer ñu tere la nga jaamu yàlla ubbi nañu makka ida jaa nasrullahi walfath wa ra'ayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaaja kon loolu am na ki koy atte léegi mooy al islaam doxalin bi fay wéy mooy al islaam kon joge makka jëm madina ñi nga xam ne dañu yaakaaroon ne warteef bi des na gannaaw fath ñu ne dañuy dem ngir yool ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen déet yool ba ñu waxoon foofa moom ngir makka amatul kooku moom assaabiquuna assaabiquuna al awaluun ñi nga xam ne ñoo ci jiitu woon ji ñuy jiitu toujours ci ay yiw mooy ña jiitu woon ñoom daal ànd nañu ak lii nga xam ne mooy yoolu gàddaay waaye lii nga xam ne nag mooy makkatal mukarram léegi kenn dootu ci jógee ne day dal di gàddaay kon ci loolu lañuy gis ne laay sabab ba mooy ab kéeféer des fa walla yow ci sa bopp munoo jaamu sa borom ni mu ware ndaxte am na yeneen yu la koy tere moo xam ragal ci sa bopp la ba ñemewoo koo def walla yu bari yi nga xam ne ñoo lay yóbba yóbbaale ci càggante bi munuloo koo def kon bépp béréb bu lay tere jaamu yàlla rek bérébu cheytaan la li ñu koy won qissa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu demee ci benn xazwa ñu ñëw ba ci benn xur wàcc fa fas yéene fanaan yonent bi ne bilaal radiallahu an yow nag toogal bul nelaw ngir bu fajar jotee nga yeete ne ko waaw mu toog wéeru rek dal di dem dal di nelew ñépp nelew ba jant bi fenk ba mu tàng yonent bi dal di yeewu fekk ne naaj na mu ne ah bilal yow moom liñ la waxoon nu mu demee mu ne ki jël sa bët bi moo jël sama bos maanaa li may xër ci jaamu yàlla yépp yaa ma raw ay gannaaw nelew nga ba waxtu yi dem daal kon man mii itam day loolu moo ma yóbbaale yonent bi ne leen war leen nañu dem nañu génn fii soog a julli ndaxte xur bii cheytaan yi ci ne nañu dem ñu dem ba sori soog a waajal julli lii nga xam ne mooy fajar kon doomu aadama bi tam fu mu mun a ne munu faa jaamu yàlla rek na gëm ne moom cheytaane mu ngi foofu te alkandem ci la jëm loolu moo tax hijra lu yaatu lool la foo am jafe-jafe boobu rek demal gannaaw ba mu waree nag te nga bañ koo def ab ndaan dina ci jóge mooy borom bi subhanahu wa taala fi ñuy wax ne يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون muy wooy yéen sama jaam yi te borom bi ñépp ay jaamam la waaye uslub bii bu ko wootee bu askanalee boppam jaam bi rek mooy ñi bugg a baax te di góor góorlu ngir baax mu ne yéen ñi ngeen xam ne da ngeen gëm na ngeen yëg ne sama suuf si yaatu na de te na ngeen ma jaamu kon maanaa bi lam fay junju yaatu suuf foofa mu ne ne munoo koo jaamu joge fa dem feneen mun koo jaamu fa iyaaya faabudu te ci man dong dong nag maa yeyoo jaamu te man ngeen war a jaamu te looloo tax ma sàkk leen kon foo ko manta def rek jog fa fii itam ab gendeeku mun nañ ko fi amee mooy bépp bokk jullit bu baax moo xam day wut dëkkuwaay bu muy jënd wala day wut dëkkuwaay bu muy dëkk di fey la waroon a nekk yitteem mooy awwalan mu xam fa jàkka ja tollu mu dëkkuwaayam boobu na seet ba xam fa jàkka ba tollu ndax bu fa dëkkee dina mun a teew si ci mboolo mi wala dina am lu ko ko gaaral su fekkee dina am wuutal feneen ndaxte jullit mboolo li muy def ci doomu aadama moom dong nga ko man leneen manu ko fi muy wuutu moom dong moo ko man leneen man ko ndaxte inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar julli moom day tere lu ñaaw ak lu bon te julli ba ko gën a mun a tere nag mooy ba nga xam ne nekk na ca mboolo nga di ci am ñaar fukki yool ak juróom ñaar te di bégloo borom bi subhanahu wa taala te sahabatul kiram ñu ne ñoom këpp kuñ doon gis rek ngay wute julli mboolo rek dañuy tiit ci yow ab naafeq yonent bi dal di ko junjaat feneen mu ne lii nga xam ne mooy julli yu juróom salawaatul xams wal jum'a ila al jum'a wa ramadan ila ramadan mukaffirat idha jtunibatil kabair mu ne diggante juróomi julli yi boo ci def rek diggante moog beneen ba ak ajjuma be ajjuma ak koor be koor mu ne li ci diggante bi yëpp bu bu ci nekk day far bàkkaar bi nekk ci diggante moog beneen julli nga fajar ci mboolo xër julliwaat ko ci tisbaar bàkkaar yi rëccoon ci diggante bi borom bi far na ko wax noonu lay continuer di wéy ajjuma bi itam ñëw di loolu yi jotoon a des diggante julli ya jullib ajjuma ak jullib ajjuma ñëw yóbbaale ko li jotoon a des koor bu ñëwee dal di ko yóbbaale waaye nag charte la fa dugal ida jtunibatil kabair su fekkee ne nag bàkkaar yu màgg ya moytu nañu ko am na borom xam-xam yu ci tënk yu baree bari ñeen fukk ak lu teg am na sax benn téere bu ñuy tuddee alkabair ku ci dellu dina xam dëgg-dëgg lan mooy bàkkaar bu mag wala talbis iblis to itam ku ci dellu dina xam lan mooy bàkkaar bu mag cib gàttal borom xam-xam yi jéem nañu koo tënk ngir mu leer mu ne bépp bàkkaar boo xam ne borom bi subhana wa taala ba muy wax wala yonent bi tudd nañu allaanu maanaam rëbb walla borom bi ne laayan duru kii kay duma ko xool walla borom bi subhanahu wa taala tudd na ne duma ko waxe duma ko xool walla duma ko waxe walla bépp bàkkaar boo xam ne tëralal nañ ko naan ku def lii nañ ko rey ku def lii nañu dagg ku def lii nañu duma ku def lii nañu dàq ku def lii nañu tëj bépp bàkkaar yii lañuy boole ñu ne leen alkabair bàkkaar yu mag yii nag mu ne bu ñu ko moytoo rek yeneen yi ci diggante bi moom borom bi subhana wa taala donte jéggul woo ko mu jéggal la ko léeg-léeg nag mu jéggal ko ni mu ko waxee rek ci julli ajjuma mboolo koor waaye léeg-léeg mu jéggal ko ci nattu jafe-jafe feebar xiif mar tiis lu ne yonent bi dem ne hatta sawka tusaaku biha almuslim mu ne dëgg nga jaar yoon rek ba dëgg jam la nga ne subhanallah nga toog nag dal di ko seppi mu ne loolu ab bàkkaar boo fàtte woon la borom bi subhanahu wa taala jaaree ko fa ngir jéggal la waaye nag bu la jamee nga tudd ma sàmba ak ma demba ñu dal di duubulaat bàkkaar bu ndaxte ngay am beneen mu dal di fateku ñu dal di ànd ndaxte loolu day jege ci bokkaale kon kii nga xam ne mooy imam bagawi rahimahullahu taala mu ne aaya bii ya ibadiya alladina amanu inna ardi wasia fa iyaya fa abudun ci suratul ankabut mu ne amoon na sabab bu tax mu wàcc mooy jullit ya desoon ca makkatal mukarrama nga xam ne gàddaayuñu ñooñu la borom bi subhanau wa taala doon waxe waaye waxe na leen nag ne am nañu iman moo tax ñu ne bàkkaar laay dal di doon mais du la génnee ci iman maanaa ki bañ a gàddaay am na bàkkaar ndaxte du mun a jaamu borom bi subhanau wa taala na mu waree kon du mat kon am na bàkkaar waaye day des nag nekk ab jullit ab jullit boo xam ne jullit bu sàggan la waaye nag gàddaay googu ba nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama sax na ci madinatul munawwara nose na lii nga xam ne mooy ad dawla al islamiya maanaa état islamique mu tëral lépp loo xam ne loolu la état boobu laaj ci anam yi yépp fa muy jëlee alal fa mu koy dugal ku def dara lañu koy daan naka la ñuy séddalee naka la ñuy jaamoo ba mbir mi yépp dal di mat mu nekk ab nose ñu tuddee ko loolu nag mooy tëralinu islam ponk ya nag soga wàccu ñu mottaliko ndaxte la wàccoon mooy nañu gëm borom bi subhanahu wa taala fukki at yonent bi sal allah sallam di ci daw te lenn rek la leen laajoon qulu laa ilaha illa allah tuflihu baat bi bu ngeen ko waxee rek texe ngeen mu des ci baat boobu fukki at lii nga xam ne di julli ñëw am ñu ne gannaaw ga desaat na makka ñetti at mu soog a dem nag ba état islamique boobu taxaw nag asaka dal di ñëw koor dal di ñëw aj dal di ñëw jihad dal di ñëw nodd dal di ñëw al amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar dal di ñëw ak leneen yu bari ci sharia al islam kon ñu seet doomu aadama bi borom bi subhanahu wa taala de ko tàggat tàggat bu njëkk bi mooy ala tawhid ngëmam dafa war a dëgër dafa war a farlu ba yàlla ak yonentam gënal ko ludul yàlla ak yonentam leneen soga mun a ñëw ndaxte yépp day aju ci pas-pasu kii def mbir moo tax jël benn ga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñu كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا وزورون فانا خميني بس بس بي دغر جيل بين با مون كين بوم دماتي دي زيارة بامني ديدت ndaxte alhaakum takathuru ne kuddu suri dem fa def puukare wala dem tagg kafane wala ñaan kafane wala sellal kafane te ñu ngi nekkoon hudasa u kufrit ñu ngi nekkoon ñoo xam ne yàggu ñoo jóge ci kéeféer moo tax ñuy def misaal ne bant bu ñu xamboon yomb naa delloo ci taal koo xam ne dañ koo xamboon ba pare fay ko kooku dafa yomba delloo ci taal bokkul ak bi nga xam ne kenn taalalu ko kon yonent bi loolu la seetloon mu ne bu leen fa demati de waaye ba iman boobu dëgëree ci biir fukki at yooyu ba mu jaral leen mbir yu baree bari heure boobu nag mu ne leen tere woon naa leen de waaye dem leen ndaxte day fàttali dee ak alaxira te loolu ku koy fàttaliku dina am ab dëgër laay réew bu amee foog mu am lu koy doxal te alal kawaru bakkan la gannaaw nag ba iman bi jaral na la léegi lu ne te moo la gënal loo mun a am moo xam baay la moo xam yaay la moo xam am am la moo xam noppalu la moo xam bakkan la borom bi subhanahu wa taala mu ne ah alal jooju ngeen di kurkuri nag am naa ci wàll sama wàll boobu itam mooy nañu ko delloo ci yéen ngir dund bi dina mun a rafet muy bunt boo xam ne ci lañu doon jëlee ngir doxal lenn ci mbiru réew mi ndax réew moom bi nga xam ne mooy réewu islaam fokk mu am ñu mu gàddu ku manoon manatul ak ki nga xam ne mosul man lu mel ni xale ak jigéen ak koo xam ne àndatul ak xelam ak ay jirim ñii daa iman dawla moo leen war a yore état ci boppam moo leen war a yore moo tax umar ibnu alxataab radiallahu anhu gis na benn zimmi mooy ku gëm beneen diine bu dul islaam dund ci biir réewu jullit yi kooku dañ koy teg impôt jizya loolu itam lenn la fu état islamique di génnee xaalis benn màggat sonn lool amatul umar ibnu alxataab woo ki nga xam ne moo yore baytul maal mu ne yéen di ngeen di xelaatee doy na waar kii akaltum shababa wa ramaytumu mu ne yow daal ni ngeen di xelaate lu doy waar la kii yéen lekk ngeen ak ndawam ba mu jeex ba mënatul ngeen sànni ko te doon joxe impôt mais dem na ba mënatul ngeen sànni ko mu ne du noonu defal leen ko salaire boo xam ne weer wu ne mu jël ko am lu mu dundee kaafir yéeféer la de du sax ab jullit kon loolu lim ñuy woon mooy maandu te diine ñaareel ba mooy abu ubayda amir ibnul jarrah ki nga xam ne dajale na impôt yooyu yépp lii tax nag jullit yi jël ko mooy aar leen aar yéefér yi ndaxte boo nekkee ci biir réewu jullit te doo jullit doo yenu ngànnaay ngànnaay dañuy tere nga yen ko lu dul la ngay liggéeyee boo dee ab rëbb lu mel ni fett boo dee liggéeykat lu mel ni jaaseeg paaka wuutal ko am mbar mu ne ca loolu moom daa taqoog doomu aadama rawatina doomu aadama buy liggéey kon nag yow dañ daa war a aar ci biir aar boobu nag perse yi dal di waajal ngir song jullit yi te ñoom ñu amoon kàttan te bari jullit yi nag dal di ko yëg moom abu ubayda amir ibnul jarrah jël impôt bi yépp woo seeni borom delloo leen ko yaa li taxoon li taxoon ñu koy jël mooy aar leen te léegi ñun jàpp nañ ne munatuñu aar suñu bopp waxatuma ak yéen téye leen seen alal dañu xam mbir mi na muy mujjee kon yonentu bi sal allah sallam juumuloon ba mu koy tuddee aminul umma mooy ki nga xam ne mooy kuuluteeb xeet bi kon ci yooyu lañuy gis ne lépp lu réew di soxla borom bi subhanahu wa taala tëralal nañu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tëralal nañu ko gannaaw gi koor ñëw ngir ñaax ki am mu yëg jafe-jafe ki ñàkk ak ñu ubbil ko buntu mun a am iman ndaxte borom bi subhanahu wa taala ba mu waxee farata bi mu ko teg ci ñun daf ñu waxoon ne laallakum tattaquun ngir ngeen mun a ragal borom bi subhanahu wa taala ci ragal borom boobu nag la nit di yëg ne ndeke ki ñàkk ki waroon a ndékki munu ko ndaxte amul war a añ te amul war a reer te amul yow nga ñam ndeke mbir mi mu jafe la nga toog lekkoo léeg-léeg ngay bébbali rek war a muslu ci seytaane léeg-léeg ngay tëfli rek léeg-léeg nga sonn lool loo romb ci lu ñuy lekk rek dal di jënd yóbbaale yaakaar ne ngoon bu jotee munoo suur